déggoo nag fu ngeen toll moom lañ siy wax mooy député dafa am lu la yoon may am loo xam yoon moo ko may président de la république mhm. man dama nekk allié ci benn coalition nekk chef de parti ànd ak ay nit ñëw assemblée nationale ñu dénk ma vice président groupe parlementaire bi waaye teewul ko ne la ma Abdoulaye Wade waxoon ba may njëkk ñëw assemblée boo demee na nga nekk député de peuple ba ñu nekk député de parti wala coalition mhm. te à tout moment ñu wane ma assemblée nationale sama doxalin loolu laay wane parce que bu ma doon par parloo bari na ay loi yu bari yu fi jaar yoo xamante ni dafay fóor ñi nga xamante ni mooy ñun ñi ñu àndal muy suñu coalition ma woote ko ba ci loi bi ñu yokkal Macky Sall mandat pour dàq élection yi. Mhm. ku ne xam na ni woote wu ma ko. Mhm. ba lu nekk dégg naa ko si. ba groupe bi ma bokk sax mere nañ ma si parce que nee dama waroon soldat ak ñoom moom pourtant boo xoolee premier bi nee naa li nga xamante ne moo jëm ci li nga xamante ni lañuy wax enquête parlementaire nan ko wax nan ko wa def ko def wote naa loolu wax naa si mais bi ñëwee ba nga xam ne dañu wax ne léegi dañu def loi boo xam ne dafay nekk loi anticonstitutionnelle d'accord ma ci te population bi d'accord si mhm. ñu yokkal Macky Sall mandat mais jël naa si lu nekk tax na Macky Sall mi ma digoon téeméeri million pour delloo ma li nga xam mooy sama frais de parrainage ma ñàkk ko ci bis boobu noonu tax na waa PDS ñi ma àndaloon nga xam si coalition tax na ñu mere ma parce que jàppaluma leen. mais loolu askan frais de parrainage waaw parce maanaam dafa dégg ni man maa ngi wax ni man ñàkk naa sama 100 millions ci parrainage mu ne ma honorable dinaa la boole diw mu remboursé la sa frais de parrainage parce que chaque jour yaa ngi koy jooytu loolu la ma waxoon. <laughs> pour nga ànd ak moom. déedéet du question ànd ak moom mais xam nga moo nekk chef xam nga ni ma Sénégal laa boo xam ne maa ngi jooytu la ma war a li nga xam ne naqar na parce que Macky Sall moo tax nekkuma candidat en tant que doomu daara. ah oui ah ci naka mais conséquence article 28 bu ñu ko sensé ma nekk candidat kan mooy kan mooy moom waaw wala déet parce que dañoo wax ni doomu daara mënul nekk candidat ah, ah, ah, ba pare ñaareel bi ñu ne léegi li tax yow ñu baar la parrainage écrit non honorable tamit lire et écrire xam nga boo rombee xam nga li ma bëgg a ñëwaat damay bàyyi ma développé mooy boo rombee du ma ci ñëwaat xam nga li gën mooy doomu daara kenn tuddu fi doomu daara dama ne loolu loolu article vingt huit bi dafa wax ni pour nga mën a nekk candidat da ngay dégg français maanaam làkku jàmbur maanaam làkku jàmbur nga xamante ne écrit làkku jàmbur da nga koy dégg maa yow au lieu que sa làkk de nga xam adduna bi yëpp boo demee constat bi am Sénégal moom da nga moo fi am parce que boo demee Amérique kenn du la dégg làkku français pour nga nekk candidat boo demee Japon wala Chine kenn du la da ngay dégg làkku jàmbur boo demee France bi kenn du la da ngay dégg làkku jàmbur sa làkk nga war a dégg pour dégg pour nekk candidat ñun la yow yow Cheikh boo déggul ñi nga xamante ni maanaam maam yi jàmbur yi xam ñoo ñëw toroxal maam yi sénégalais yi te suñu maam taxaw sowe leen ñu ne da dégg làkk boobu for force nga nekk candidat pour jiit Sénégal moo tax que ne bokk na mooy moom ku ne xam na ni rek euh, li nga xam mooy code électoral bi lañ ci def ci affaire pour nga nekk maanaam candidat mais ngoogul ak li nga xam moom la constitutionnel waxoon parce que man bu ne damaa am doublon externe. ki ma ko amal maanaam nekk am double nationalité mais comme amul double nationalité nga xamante ne tey bu génnoon man ma nekk candidat lan moo tax kooku maanaam amul sanction yu ne si moom. dafa bizarre dafa mm. doy na war kon loolu bu fekkente ne am na. léegi nag yéen yéen a ko war a xeex yéen député yi. loolu mooy seen loolu moo tax. barki dem fii wax leen li ma leen di wax. dindi ko. benn parce que bu ñu ko dindiwul. Mm. fii doomu daal réew mi.